bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laata ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mos nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppale ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si da nga kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï ni ñoo ma ni ñoo ma dimbale ko kon de carrière am ñaari victoire la am te man maa ngi ni ñoo may ko chance. mais li ñu jaan est-ce que du sa kaw. dama koy réeree fa ma jaar commissaire. waaw bu doomu ndeyam jaar. Lirou Diane ragal la ni ñoo ma ni ñoo ma dimbali ko kon de carrière am ñaari victoire la am te man maa ngi plus de cinquante victoire ni ñoo may ko chance. mais Lirou Diane est-ce que du sa kaw. dama koy réeree ma jaar commissaire. waaw bu doomu ndeyam fa la jaar. illallah kay badu la ilaha illallah ma nga noonu tooñi tooñi combat laa nañ ma dix combat te booy dama leen di def nii maa leen man maa yëpp doole ku billaahi maa ko kii maa ko gi dañuy jëm. gaalu doole doxul jàmm. dooni dégg la ilaha illallah. ma nga noonu. Ah, combat bi daa war a taxaw. bu Papis Fala dama ngay reere barke Sëriñ Saliou Bamba dooni ma ñëw ma duma nga daan la ilaha illallah ne dawal ña ngay tëkkante ñoom ñaar Tony Junior Mor Kang dem tribune ba topp na ko da koy topp Mor Kang Kang yéeg na ca kaw Tony Junior nee na ko du ko foo dugg ma dugg fa noonu Mor ca kaw Badou Tooni topp na ko Tooni nga noonu nee na ko duma la may jàmm laa ilaha illallah Tooni mbaa du yéeg déggal ma waa Colobane Tooni xanaa booy topp nit ba mu dugg këram nga mun koo bàyyi xoolal ma waa Fass xoolal ma waa Fass ma noonu xale yaa ngi rawale ma noonu di dem moom Mor Kang mais Tony. lu tax nga ne dama leen di weer. Uh-huh. ci nan jël Tony Junior dama leen di tumataan leen. 10 combats laa def 10 victoire kenn di xaalalu maaw yoon. mais la moo tax Mor na tëll nga sëngale ko. non dama xam ni làmb cànk la te day taw depuis boobu ba tey. sës nañ nag na ñëw. bu dul Mor bu dul Mor. kun na di doon kun làmb booleel. yaa ngi wax sa diggante ak Talfa. lépp ku fi ñëw du wala may foo ñeex. bëgg nga Talfa. dafa mel ni li ñëpp bàyyi fi kenn. amul mbokk ci làmb nee ku ñëw